projet bi nga xam ne nag euh, amaloon nañ ko fii ci Sénégal euh, depuis bi verdict bi daanoo ba léegi rek xale yi ñu ngi jàmmaarloog policiers yi xale yi nag comme niñ leen xamee rek ak policiers yi rek voilà euh, ñooñu ñan la ñaan ak Ousmane Sonko dong lañ ko mën a ñoom dong lañ mën a doon parce que kontaanuñ xëy na ñoom ci li nga xam ni mooy verdict bi voilà verdict bi nag euh, ñi ko def du leen jàngal seen métier parce que xam naa ne xam nañ ko waaye bu fekkee lu valable la seen danañ seen seen seen seen bopp dina tranquille dina dinañ conscience bu fekkee ne nekk na loo xam ne lu valable la bu buñ tëddee du ñu nelaw waaw parce que mi ngi mel ne yow nga tooñ nit rek boo tooñee nit ki mu leer na yaa ko tooñ doo am jàmm doo mën a nelaw loolu nag yàlla moo koy def loolu yàlla moo koy def voilà mais su fekkee dañ la tooñ yow foo tëddee da ngay nelaw. parce que da xam ne yow dañ la tooñ voilà loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax baax moo tax nag man moom du ma leen wax ni li ngeen atte noonu la wala du noonu en tout cas daal loolu euh, euh, lu ngeen xam la lu ngeen maîtriser la bu fekkee jàpp ngeen ni yéen li ngeen atte noonu la a ah, seen conseil en tout cas daal àdduna moom lépp luñ fi atte rek ëllëg dinañ ko attewaat loolu nag moom yàgg nañ leen koy wax borom xam-xam yi waa yàgg loolu nekkul loo xam ne asaar la ni lu ñuy waxantu nii la de lépp loo atte ci àdduna bu yemal xeyaam ñëpp dinañ taxaw nga attewaat ko léegi nag boo ko àttee woo boo ko àttee woon ci àdduna lu naka sudul noonu xam nga fay sa fa fa nga jëm fa nga jëm ku nekk xam ko suñu borom moom da lay naan la dalay joxañ loxo bi rek ne la fa nga jëm xam nga ko voilà parce que danga nga woon loo xam ne nekkut loo xam ne lu yoon la loolu kan bu ñu nekkee ci àdduna dañuy dañuy dañuy dañuy laabirante nekkee ci àdduna dañuy dañuy dañuy jàppalante kenn ku ci nekk euh, côté bi nga nekkee nga laabirante sa morom balaa ëllëg ba ñuy bala ñuy poñante ay mbëb yi baat parce que foofu nag attention chaque jour ñu ngi leen koy rappeler te gisoo kenn ko dem ñëwaat te fii ay boroomi xam-xam bu nekk jaar na fi borom xam-xam nekk jaar na fi te borom xam yooyu yëpp tey jii am nañu tey ñu ngi tëdd di xaare voilà kan loo bari bari xam-xam rek xoolal bu baax li ngay def ñu ngi leen nuyu di leen siyaar